attu Baye Cheikh ngeen ci ànd ak Baye Cheikh gay jaal bëgg fàllu ñoo ko bokk bëgg sunu ñaareelu màndarga ci at mi nga xamante ne atum tubaab moom lañuy wax deux mille vingt et un bu dee ci atum gàddaay ga muy mille quatre cent quarante deux bàyyi Cheikh Gueye rijaal bëgg farlu ñoo ko bokk bëgg bi ñu géegee ci émission boobu doon ndaw soo su nga xamante ne kersa ci teggin dafa réeroog ñoom banu waxtaanoon ci wax leen na mu waxe ak na mu jëfe kon dañ koy dugal rokku maay kan kon jépp jigéen joo xam ne amoo yërmande ci sa borom kër na nga dugg roqumaay kan xoolaat sa bopp mbokk yi dafay mel ne ñàkk yërmande munu la weesu jàpp sa borom kër gëstu ba xam li ko naqari nga di ko ko def wala nga tànn tànneef bu la birne koo ko wax tamit ku dina ko naqari wala comme ko am jom wala mu am kersa wala mu am lu bañ kon ndaw si li mu jox ko jëkkëram muy wutal ko këllub goro tudde ko tur woo xam ne saaga saa yu ko tuddee saaga na goro bi borom këram it dem bañ xelal ko mu tànn moom itam ab xaj tudde ko tur woo xamante ne bis dina mas a ñëw su ko tuddee saaga gorom bu jigéen moom itam kon mu alil ko leptoo faytoo wante nag dafay bari ñoo xamante ne fii ci Afrique rawatina suñ Sénégal gi xamuñu ku tooñ ku fayu lañu xam bari na sëy rëng-rëngi la ko yëngal ca jigéen ja lay doon ñu saxoo wax boroom kër bi muñal mu sax ci muñ bësës bokki olof njaay dafa lépp ne boo amee xaritu gunóor bul ko tas ci kekk muy wér ngi rajo Baol Médias ci Mbàkke Baol tabla caabi émission attu Baye Cheikh ngeen ci ànd ak Baye Cheikh Gaïndé Diallo bëgg fàllu ñoo ko bokk bëgg ñu jël nag jenn jigéen du dugal ko ruqumaay kan sant ko ko ndax mu xoolaat boppam xool mooy kan doomu adama yàlla moo ko sàkk andi ko daaru duniya wax ne alaxira gii nga war a dem ngir duggi àjjana ji nga jóge woon yoon wi moo lay jëmee ca àjjana ja nga jóge woon ndax fa la sa bàyyi ko woon meññi la fii ci biir kaso bi ci kaso nga juddoo yow doomu aadama jëkk la xam kan yaay ki nga xamante ne ci biir kaso ci nga juddoo kon rëy rëylu waru la ci kaso nga juddoo sëjnul mu'miniin wa jannatul kaafir kon ajjana yéefar yi la ndax yéefar yi fii la ñuy mujjee gis lu neex suñu tuwut ba faatu ci muy seen ñàkk gëm yàlla suñ borom kon li tax ñu ne mooy àjjana yi yéefar yi mooy lii ñuy am buñ fi jógee dootuñu gis lu ni mel ndax sawara sii bi tàng nii bona bona bona bon tàng ndànk tàng nii sawara si saxaru sawara sare dong ko gën a tàng ñu bàyyi ci xel kon yow doomu adama ñu andi la àdduna ngir nga war a topp yàlla sunu borom ci ay ndigalam déglu li mu la wax sant la ko sa diggante ak sa moromum jaam ndax dañoo wax ne yàlla nit ki mooy ndig mooy ndabam moo tax mu sàkk ñuul sàkk weex sakk xonq nit bu bula lu neex yàlla mu sàkk faxaaru li maa yurit ci coobareem lay doxe yow nag mu def la doomu aadama defu la bàyyi ma nga dikk daaru duniyaa war koo topp mu boole la yow jigéen ji ak sa borom kër digal la ne soo jaamoo yàlla sa borom ba noppi sa wareef sa diggante ak sa borom kër nga matal ko soo faatoo yaay tànnal sa bopp aljana ju la neex ci aljana kon aljana ji neex ci aljana yi jigéen ji jaamu yàlla na mu war a jaamoo yàlla kemtulaay kàttan li ko yàlla sant ci doomu aadama yi mu doxal ko am ngërëmul borom këram ci kaw bu ko gërëmut tam la war muy sart yu ko yàlla digal ne nii lañ war defe ci diggante jigéen ak borom këram mu def ko doonte borom kër ba gërëmu ko yàlla gërëm na ko ca desin wa ndax wàccut yoon wax mooy tànnal boppam aljana loolu jigéen rek ko kon yàlla dafa yàgg may jigéen doole joj dafa bari ndax loolu doole magu ko góor du tànnal boppam aljana te itam jigéen moo njëkk bokk ci lislaam kon loolu fér la jigéen lañ tuddee aw saar muy suratu Mariam muy la am solo soxna Mariamu di wajuri Seydina Isa moom itam mooy jaamu yàlla ba yàlla jox ko doom yoo xamante ne amut baay di genn wàllu nit ak genn wàllu malaaka di dekkal lu dee kon jigéen am na lu ne koo fi dégg it ku baax buñ ko tuddee jigéen nga ca ginnaawam jàppale ko kon kay royuwaay yi bari na lool ngeen di déglu ci Mbàkke Bawol tablo jaabi attu ak bay Seex Gayir Jaal bëgg fàllu ñoo ko bokk bëgg kon jigéen ji war naa dugg ruqumaay kan ndax amul ngërëmul yaayam ji ko jur ndax nam ko sëyloo woon defu ko amul ngërëmul gorom bi mu fekk si amul ngërëmul borom këram muy lu doy waar ndax jigéen bu njëkk daan na nekk ci kër boroom këram dem ba néew doole dal ko mu wàññeeku moom takkaatu kumbaam bu baax parce que lay waree fu boroom këram ca kër ga mu matale ko dund ba du manki la nga xamante ne mooy wax ju neex ja du manki li nga xamante ne mooy jëfamit du xamal kenn ne maa koy jëf kumpa lay doon takun nga xam yow ndaw si ñu dugal ruqumaay kan ne mag ñi dañ daan seey si yéen nag gone yi léegi da di seet si lu bàyyi ci xel bu baax bu jëkkoon mag ñi yow ndaw si duggum ruq maay kan te noo la fi dugal sànjee ko faw ñu bëgg laa xamal ne sunu maam ya dañu daan manqué dund ba bu ñu bayee dugub ji dem may tàmbalee am pepp pepp ma wowagut daanañ dagg ay gub gas am pax taal matt ca biir gàll ca gub ya di ko wëlbati muy tàng ba wow ñu doog koo yóbbu ca daggaja bojj ko buñ ñëwee togg ci cere njanja cere njanja nag boo ko xamut mooy cere joo xam ne tey nga ko soq tey nga ko wal foofu ko sebeti ko wal ko ba mu doon sunguf nga mooñ ko ci bis bi tay ko ci bis bi laala ko delloo ko jël ko ràcc ko mu doon kere forox du ko def moom la ñuy wax njànja ñoom nag seen njànja da caa gënoon a yéeme ndax njànja loo xam ne gumu dugub ci nga jël wowagut da gasum pax dugal ca ay mat taal ko moomee tàngal dugub ja nga doog ko jël bojj ko ñëw soq ko wal ko ci bis bi daal koy tay cere ginnaaw bi nga ko mooñee xippi ràcc sa cere togg sam ñeex bu ñu amutum ñeex sax ñu tàngal ndox kese jamono yee ñeex du mën a am ndox kese ñu tàngal sànn ca xorom dunju xorom daal di koy siime cere ja tàmbalee xewlu yii suñu maam ya daa lañ ko def ci benn bés nga waajal ci lii yépp jigéen daana ko def kon nañ leen di fàttali ngeen xam ne maam ya dañ doon seey si yéen nag fi mu nekk dangeen di seet si bokk na ci maam yi daañuy jël seen takkaay jaay ko def ko ci seen njël ba jeex tàkk bu ñu bàyyee seen bopp ak yàlla kon yow mi nga xamante ne dangay ngay bokk ci gone tey del gëstu démb te xam na ñi daan def lii lu baax doom mu la ñu bëggoon te am nañu ko ndax waxana na ne sa jëkkër nu mën a mel yow boo jaamoo yàlla ak yi sa diggante ak moom nga doxal ko yow man xiyaam yaay tànnal sa bopp aljana ja ngay dugg loolu góor amu ko te ko mas a am ci way dencante kese kon bàyyil xel ci ne mag ñi dañ daan taxane ay lobbu matt jal ko ci ginnaaw kër gi muy kër ba boo awee ca buntu poot ba bi ci jël di ko togge ci nawet bi te itam olof lépp na ne sàqum beneen lu mu fëgg-fëgg dese téeméeri pepp ba fii mu nekk nii mag ñu baax ñooñee seeni jikko am na ñu ko yor ci àdduna bi fépp foo nekk boo gëstoo kuy roy loola am na ci ndax sàqum benekat lu mu fëgg-fëgg desal téeméeri tepp dina xamal ne itam mag ñu baax ñooñee ba ñu nekkee ci seen baaxit ñàkkutoon ay bennet bennet yu raxoon ci seen biir te daaw ñu defe lu baax la caabi rawatina ñi bëgg ëttu baay Cheikh bi di ci ànd ak ñun ñu dugal ndaw si ci ruqumaay kan ka kenn ku ne war na caa dugal boppam ñu xamal ko ne mag ñi daanan jànkoonte ak loolu ñoo daan jël ab goj yóbbu ca teen ba di jukki ba seeni yoxo fut bay naaj ngir dox mu ñu togge añ wala reer wala doom aadama yi naan ko yoxo yi da daan futt dañu daan yenu ba seen bopp am ci ñun jerwa dinaa teggiku dañu daan dem tool jóge fa ñëw soq njanja wal ko togg ko ni ma wax woon léegi lépp ci bi dañu daan jëri ji ànd ak poussière ba muy pënd baag lépp dañ daan ànd ak moom te du tee bu ñu dikkee danañ sellal ba seenu togg du fag daaw ñu togg togg njaaloo buñ daan togg dañu fay toog kenn musuleena wóotu di xorom xorom su yàq ñam wa wala ñu def ca posen dañu daan dajale seen matuwaay yépp nga xam ne duñ jóg di wuti dara ci waañ wi doog taal bu ñu masaa taal itam togg ba yàq jot dañuy dem ci kër gi penc mi xool ba xam seeni añkat ñépp teew na ñoom déet bu ñu teewut ñu gëstu ba xam ñépp dinañ mën a teewam déet daal di dem tàggoo añ bi kat noppi na boroom kër bi ne xaaral wala yakkal wala lay bëgg-bëggam ca añ boobee mu santaane ko ñu doo ko yàq ma bàyyi loola xel yow mi nga xamante ne yow la ñuy dugal ruqum maay kan ngir nga xam yaay kan say maam ñoo daan jàng ko ante ak coono yi maay kan ci ëttu bàyyi cheikh bëgg laa wax yaay kan mooy dañ lay wax maam yi lañu daan jëfandikoo bokk na ci suñu royukaay bu mag muy soxna jaaretulaa moom day am na bés ñu ne Mamor borom këram am ku mu yónni ak ndawal bu ñu war a togg wante moom mu xamatul ne maam moor waxu ko woon mu jox ko maam jaara mu dem jox ko maam jaara ndax it maam jaara jëfam ju baax dafa taxoon xel yépp ci moom lay nekk dégg nga ñu naan soxna jaara bu aaye dong yëpp ay rakkaaju dañ garab ya di dóoru te kenn du ca gaañu waaw dañuy mañax mañaxi rek la soxna jaara sa donga yaa ngay sa gone yaa ngay muñ di mañax mañaxi waaw soxna jaara moo ay tey ñëpp a ngi jàmmax jàmmax yi bu masaa ay dongo yi dañuy muuñ rek koo gis ma ngay muuñ dañuy xam na yëf yi doy dina neex kon kooku bokk na ci saroyikaay nga xam yaay kan ba mu dikkee moom maam Mor xamle ne kat ndawal gii kat soxna jaara joxuñu la ko woon diw lañ ko joxloo woon ba mu xëyee moom soxna jaareetu laay dafa jóg dem kër waajuram ba mu demee sëñ bi sax xalaat na ne mbaadu daa yóbbaale mer ba mu demee mu jiital fa aw wëllu wëllu boobu xamut mooy nax gu jigéen wu toll ci tegu bu mu dikkee jox ko maam moor ne ko mbakke maa ko tuube ndawal ga ma toggoon démb te ndigal la du ma man war a togg tey nag nga xool bu doon yéen gone yi nan ngeen di def waaye ma wax rek yaay kan kii mooy maam ji mat roy ci Afrique ak ñeneen ak ñeneen ñu mel ni moom kon bu kenn xale yi amuñu eh, roykaay bawal tabla caabi attu Baye Cheikh ngeen ca ànd ak Baye Cheikh gayu jàll bëgg fàllu ñoo ko bokk bëgg kon ndaw si yaa ngi biir ruqumaay kan kon yaay ki nga xamante ne muñ ak sàkk lu baax moo la war saa ne muñit bàmmeel lay jeexe bu kenn séentu ne doom ju am wërsëg mooy liggéeyub ndey nga am doom amut wërsëg wu ne gaañ ñi nga defe ne liggéeyoo déedéet loolu di liggéey ëllëg dinañ ci ñëw liggéey bi moom mooy defal sa borom kër li nga ko war a defal doonte gërëmu la ca yàlla ni xam na jaar nga ci sart yi mu tegle gërëm na la yi mu tege kon gërëm na la loolu rek moo ci am solo bu ko defee yow jigéen ji aw ci sart yi def ni maam jaaraa defoon ëllëg yowmal xiyaam yaay tànnal sa bopp aljana ju la kon nañu ci bàyyi xel di loo xamante ne war na jullit bu nekk mu xam li ko war ci sëy diggam ak borom këram ndax ak ji dañoo wax ne doo wàjji woon bu lekk nit daganoon nga jël say ween togg ko jox ko ko dagg ko muy naaj it àq ja wàcc la kon àq jooju amul yamukaay kon as lëfa ngoogu yow jigéen ji defoon sa borom kër jëf ji jël turu ñàkki teggin tudde ko kër bi nga yekkale sa ngoro ngir jublu ko caa saaga jàppal foofu kon ñu ngi may xamal ne waxtu wi mu ngi jëm ci jeex nuy siyaare sëñ Modou Diop Thiat ak mboolem ñi liggéey ci Baol Média ak ñi leen di déglu rawatina Baol Média 24 24 bi YouTube bi ak Facebook bi wala ñu niy déglu ci sun rajo TV wala Sénégal rajo lu mu ci man di doon bàyyi Cheikh Gaye Ridial bëgg fàllu ñoo ko boo ko bëgg moo leen doon defal seen émission yàlla na yàlla doole dimbali doole jubal suñu mbir ak mujj rafet ak jubag juboo ci njaboot gi la waay def bopp